docteur euh, Seydina Oumar Seye maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. Euh, Seydina Oumar sa xam-xam màcc wàllum koom-koom déjà en tant qu'économiste naka nga apprécier référentiel Sénégal deux mille cinquante bi nga xam ne régime mu bi présenté nañ ko Sénégalais yi daal di koy tënk euh, ci ñeenti axe stratégique ban jàngat nga ci am. waaw boo jàngat bi ñu ci am bon c'est une nouveauté quand même euh, quoi qu'on quant à l'approche endogène xam nga li ñuy wax approche endogène mooy sa lépp bopp lépp mu nekk ci suñuy xalaati bopp suñu yëf or da nga daan gis bu njëkk suñu dëkk yi bu ñu daan tënk dara dañuy xool ay programme yoo xamante ni tubaab yee ko tënkoon ñu dem ci ay référentiel comme programme d'ajustement structurel wala ñu ni dëkk tel defoon na lii fii leen jaar pour dem ñun ñu jéem a def noonu sans pour autant ñu tenir compte sur les réalités et spécificités locales fii la rupture c'est quoi on a mobilisé des agents de l'État c'est-à-dire l'expertise locale muy euh, Victor Ndiaye boobu ñu ci ngaañ mais y a y a rien de nouveau sous le soleil c'est-à-dire que ici qu'est-ce qu'il a fait la dimension technique en termes de forme mais l'ensemble des valeurs ajoutées yi nga xamante ne ay contribution la ay sénégalais de source et je peux vous témoigner pour taire leur nom les universitaires ont été associés pas mal d'universitaires en seconde lecture en input et autres Maintenant, ce Mouche Ndiaye-là, il n'a fait tout simplement l'exposer et faire la monture, entre autres, parce que ce son job, c'est un expert quand même. Et là, au lieu d'aller à l'étranger, ici, on a fait confiance à l'expertise locale. Cela est salutaire et ça cadre à cette approche endogène. Donc ça, c'est une nouveauté. Oui. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est un projet ambitieux qui ambitionne de réduire la pauvreté, tripler le revenu par habitant d'ici 2050 et notamment d'atteindre une croissance annuelle moyenne. Maanaam comme comme boo xamante ni lépp luy jóge fépp buñ ko xaymaa dina nekk l'ordre de 7 pour cent. foofu tamit am na solo ñu taxaw seetlu ci parce que am na ñuy critiquer ni ah ñun kat ku bëgg a réduire la pauvreté triple revenu par habitant ci deux mille cinquante nan nga mën a ñëwee ambition bu ndawee ni am taux de croissance su sept pour cent ñiy wax loolu ñenn ñi dañuy politique ñu dugg ñu ci politique nekkuñu ci ay far mais dañuy wax juste li économie di def mais bari na ay borom sasan yoo xamante ni bon duñ la wax ni mu demee wala dañ koy tay wala selon fi ñu far. mais 7 pour cent bii du manque d'ambition c'est juste une croissance endogène mooy une croissance effective et réelle boo xamante ni ay Sénégalais ko moom day des Sénégal parce que croissance yi nit ñi yàggaan di wax naan la croissance à deux chiffres ay tur la mën nga am croissance su 14 pour cent par rapport à une économie bu désarticulée wala économie boo xamante ni moomaloo ko sa bopp ñi indi seeni koom sanc réew mi def yaa ngi gis ni économie mu ngi dox mu ngi génn mu ngi def lépp def nga croissance waaye bu ñu séddoowee comme ab tool booy bay rek kenn ki ñëw investir ngeen bay séddoo yow mi bay wala ki investir yow mi ko moom bu mu séddoowoo li ngay des ak ku ne jël wàllam bokkul ak boo moomee lépp. Hmm. léegi nag 7 pour cent yii ab croissance la bu ñu tënk boo xamante ni bu ñu génnee li ñu war a génne li ñuy des lii ñoo ko moom. loolu lu am solo la si très bien ñu def remarque bi def détail boobu c'est fondamental pour ñiy wax ni. Mm-hmm. manque d' ambition la du manque d' si c' est une croissance effective boo xamante ni une croissance propre purement et uniquement sénégalais boo koy misaal rek mu ngi mel ni tey boo jëlee ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw di participer à la croissance du Sénégal mën naa ci jël exemple yu simple boo jëlee les filières françaises wala entreprise française yi nekk Sénégal nga jël comme Orange tey jii li mu xam ci Sénégal. bu ñu séddoowee moom mu jël lim am ñu jël lim am mais li mu am du ko yóbboo et ils vont trinquer au bord de la Seine ak yeneen ak yeneen mm. mais cette fois yi sept pour cent yi bu ñu teggee li ñu war a am yépp ñun lii dana des ci dëkk bi or dañ la daan wax croissance u dix pour cent wala onze pour cent boo xamante ni bu partenaires yi jëlee wala ñëpp ñi ñëw implanté woo Sénégal ñi tabax ko comme boobu ñun li ñuy desee quatre pour cent lay desee wala trois pour cent or loolu boo ko séddalee mooy waral ngay dégg bu madame Moreau demee ci marché bi ñu ni croissance ne se mange pas Sénégal kat defar nañ comme bii waaye yow ci li nga yor ci sa loxo doo ko yëg du feeñ ci pouvoir d'achat ménage yi du feeñ sur la consommation effective du feeñ ci ab industrialisation boo xam ne day absorber de la main d'œuvre idée de ces sept pour cent là mooy croissance bi tey bu toutes les activités économiques doxee muy tertiaire bi secondaire ak les services à travers l'innovation numérique dinañ am croissance boo xam ne ñun kase ci Sénégal sept pour cent la te loolu c'est un minimum parce que l'idée ici c'est d'aller vers des prudences yoo xamante ni chiffres yi du nekk ay chiffres tappale lii mooy li mënul ñàkk ça veut dire que même à terme mën nañu ko mais pour ne pas venir di def ay mesures yoo xamante ne doo ko atteindre da ngay nax Sénégalais donc autant nga ni 7 pour cent lii leer na ni yaa ko moom di ko am laneen li ci tegu bénéfice la donc foofu jar na taxaw seetlu du manqué tey ji d' ambition beneen élément bi ngay bi ñu taxawoon di wax tey muy financement bi loolu tamit da gis ñu bari dañ ciy wax waa ñun. nan lañ ma ne dix huit mille milliards ñu ni dinañ fexe tey jii ci disi euh, mooy programme d'action prioritaire yi wala plan quinquennal nan la ñuy fexee am ko ñi ni ah ñun de ci ay ressource locale lañ ko bëgg a jëlee loolu nan la mën a nekkee ñu bari question boobu la ñuy posé nan la ñuy financer suñu économie bi. voilà exactement ñu ngi koy mm. waaw loolu laa la bëggoon laaj euh, euh, justement docteur Seydina Oumar Seye. oui voilà parce que ñu bëri dañoo jàpp ni. Mhm. tey mënuñoo def tey jii financement interne bu ñuy wax financement interne waxuñu dix huit mille presque quatre cent quatre vingt seize virgule quatre vingt trois milliards yi. Mhm. Sénégal soxlaatul yi fi kenn. dañuy xool Kédougou Thiès Matam Ziguinchor li ñu wax ci pôle yi la muy génne ñu amal ko suñu bopp non amul benn économie buy def loolu parfois nga dégg Chine gi guddee bërki démb def nan ay emprunt obligataire banque xaalis sax ni nu koy tabaxee ci dette lay jógee xaalis banque centrale ci dette lay commencé émission d'argent boo gis rek à contrepartie derrière dette la donc fii idée bi xam nga lan la li fi bees lii mooy vraie rupture bi nag par rapport ak référentiel yi ñu fi yàgg a gis c'est-à-dire que dañ daan utiliser le placement le financement classique mooy à travers le programme budget de l'État ñu xool les ressources fiscales non fiscales les partenaires techniques ak dons yi fii ñu ni dan nan am yenn éléments yu bari dañ ko doon bàyyi en plus yee donc ba tey ma rappelé yi le financement classique c' est noir sur blanc yi ci référentiel bi man toggat naa ko def chiffre yi mooy 62 pour cent toujours dana jógee ci budget public donc li ci des. la ñuy xool nan lañ koy utiliser à travers une approche endogène moom la ñuy wax la mobilisation de l' épargne nationale et sous-régionale parce que dëkk léegi dootoo ko xool ci Sénégal mais ñun zone économique bi ñu bokk mooy UEMOA ak yeneen nan la ñuy fexee ñu am un secteur privé defar un consortium du secteur privé de l'économie à telle ko ñoom léegi bu ñu ñëwatee ni ñu daan tëggee partenariat public privé ñu war a tabax dara wala ñu def dara daanaka bu dee cent milliards la état yi indi quatre vingt dix yi ñee indi dix léegi cette fois ci dañoo bëgg état bu dara xewatee muy indi daanaka pratiquement les soixante dix ñee lu mu néew néew indi trente jëm kaw loolu partenariat public privé la or bu njëkk yooyu da daan ne ci discours yi mais boo seetloo lim daan contribuer. ci tabax budget lu néew la léegi ñu ni poche yooyu yeneen ressources inexploitées yoo xamante ni sa interne foofu la ñuy fexe ñu optimiser ko lépp luñ fa mën a am ñu am ko loolu bu duggee di nga gis ni lu bari looy dem ci sa endettement di lebi sur les marchés euh, euh, financier muy service de la dette li ñuy wax le loyer de l'argent liy tegu ci bor bi mooy comme boo tabax ba ñu am croissance bu ñu génnee li ñuy fay ñooñu mu desee ñu li ñu war a régler tabax ci ay hôpitaux defar ci industrie yi am ndaw yi duñu attanati loolu dañuy bujj bàyyi industrie bi faya bor or bu ñu fexee ba bor boobu dootul diis à travers tey jii la mobilisation des ressources internes parce que nag dinañ ko ami pétrole ak gaz mu ngi ñëw lool c'est important léegi cash flow yooyu buy ñëw tey jii ñëpp ñuy wax tey dégradation note bektel yooyu partenaires yi duñu ko xoolati xam nga lu ñuy xool mhm. nan la ñuy fexee njëkk a teg tànk Sénégal am fi ay partenariat stratégique parce que pétrole gaz les gens sont moins regardés ay notation yu tel xam nga lu ñuy njëkkante nan la ñuy njëkkantee fii kat dëkk buy dem la naa fi njëkk a jiitay tànk maintenant c'est là il appartient à l'État ñiy wax renégociation quintessence bi foofu la nekke mooy la renégociation des contrat mhm. ah foo xamante ni dañ fa daan war di am dix di fa am six ah nu ñuy fexe renégocier ko buñ ci ma mënee am lu ëpp am ko ci waaye buñ ko mënul am léegi tamit taxul ñu dagg contrat yi dañuy continuer di jël sii si tout en sachant que contrat boo gis daa am àpp mooy échéance. ci hmm. juróomi at ci cinq ci dix ans. bu jeexee soit ñu demal suñ bopp wala ñun la kat boo continuer lii nekk suñuy diis dañuy jot donc tamit loolu c'est important ñiy wax ni état non bu renégocier tel tel renégocier waxul dañuy bàyyi ku nekk dem. Hmm. donc nañu may état bi au moins mu renégocier ñaare ci mën a am mu am gain de wala moom statu quo. statu quo bu ko amee état danaan bon man bëggoon naa lii waaye ñii comme ñoom du ñu rëcc fii ak juróomi at contrat bi day jeex te foog ñu tënkaat ko bu ñu koy tënkaat damay xool ñeneen ñu mën a joxe lu ëpp wala ñoom ñu joxeel seen bopp lu ëpp wala ñun ñu demal suñu bopp loolu mooy objectif négociation yi oor ñëpp ñuy def business ci ay dëkk bu am ressources pétrolières et gazières du dëkk yëpp la am duñ fa nangoo teggi seen tànk donc tey jii bu ñu calculer ni mais perte lépp. ak xool tey jii lii état di wax te mu yanu maana war a nekk njariñ yu dugg ci askanam yu ci ëpp dañuy yéeg duñ dem ci contentieux parce que le pétrole et le gaz yu ci baari tey jii bu ñu waxee renégociation ñi business yi son intelligents et la plupart du temps da ngay gis ni état dina am gain de ci yenn yi et ces ressources yooyu ñu war a grapper bu ñu ko dajalee ci ay essais yu bari ah njariñ li muy law di tëq ci yeneen secteurs yu ci mel ni tey jii numérique yu ci mel ni tey jii pétrochimie ak laneen ak laneen loolu dana jur njëriñ yu law teq ñëpp en tout cas en somme mhm. projet bi ñu gis démb contrairement ak PSE wala bu Ablaye Wade man gëwuma projet bu amul yéene bu Ablaye Wade amoon na yéene bu baax bu Macky Sall amoon na yéene bu baax moom moo mujj bi ñu tudd ci PSE nii wëg nii wëg nii Sénégal dina tem mais yow madame Moreau sénégalais bi est-ce que lan ñu tënkaloon ci PSE ba bi Abla Macky Sall lu jóge ndax Sénégal yegg na foofu yéene bi baaxoon na waaye résultat yéeneem jotuñu koo matale ñii mm-hmm. nag diagnostic bi ñu def mooy pourtant projet boo gis wala référence boo gis am na yéene waaw lu tax yéene ba duñ ko mën a matali ñii loolu lañ bëgg a faj. d'accord donc tey jii nañ leen may ñu xool fii ak juróomi at ndax dana nekk ci yoon boobu ou pas. kon sénégalais yi kañ lañ war a santé résultat wu référentiel bi euh, di Sénégal deux mille cinquante Seydina Oumar Seye waaw xam nga résultat boobu tey jii c'est c'est c'est c'est progressif et graduel xam nga tey jii d'ici bu ñu ñëwee ci premier trimestre deux mille vingt cinq bi rek maanaam di d'ici ay mars deux mille vingt cinq di nga commencé xam ñu commencé dessiner contours yi en mi mandat di nga commencé yenn chantier yenn projet yi leer maintenant deux mille vingt cinq di nga mën a natt le président Diomaye fay ci transformation yi ndax yoon yaa ngi raay yi dem na wala tel maintenant tey jii deux mille cinquante nun ci soxla mooy lii ñu tënk nii buñ ko jëmbalee mooy Sénégal boo xamante ni madame Moreau doomam xamatul facture ndox ak courant du ko fay état da koy gàddu ndax am nan koom bi ki war a faju dootul fay dinañ am jàng mu yomb te dinañ am économie boo xamante ni la redistribution des richesses day mel ni fa euh, waa Kadhafi bàyyi woon euh, Libye wala comme dëkku tubaab yi maintenant nag tamit tey jii il faut que Sénégal yi am intelligence boo xamante ni tey ñu accompagner loolu pour njëriñ loolu law teq ñëpp mais tout temps étant en alerte fépp fu ñu gis ni baaxul ñu teel ko yóbbu eh ñun li ngeen ñu waxoon du lii na ngeen fexe ba affaire yi résultat yu dem mais bu ñu bàyyi ba mu bon ñu taxaw di critiquer nar Sénégalais yi nekk en alerte lii ngeen ñu dikkat yoon bi day jariñ suñuy doom fu ko nar a wàcc ñëpp taxaw ne non bu ko wàcc parce que ñun fële leen bëgg a yegg loolu c'est important donc le blanc-seing et foofu laay saluer l'humilité bi ci président bi wax du signe de faiblesse parce que kenn amul tey jii li ñuy wax de projections et des provisions yoo xamante des prévisions yoo xamante ni prophétie la maanaam li naan prophétie lii nga wax rek day nekk moo tax moom mu xam ni ah mais man ñun lii ñu tënk am ci yéene xëy na yem na yeneen boroom xam-xam Sénégal wala ñeneen ak ñeneen ñuy xool ni ah feede yi xëy na bii buñ ci dollee lii buñ jubbantee fii tel moo tax mu poursuivre la réflexion loolu tamit c'est à saluer loolu mooy tax ñu am une adhésion une appropriation collective parce que bu madame Moreau ñi muy liggéey gis ni ñun kat nii ñu gisee woon fii lii ñu wax dugal nañ ko ci da koy def léegi projet universitaires yi def ko seen projet ménages yi def ko seen projet les partenaires def ko seen projet banques yi def ko seen projet ñeneen def ko seen projet adhésion ak appropriation collective boobu moom moo manqué ñun ci suñu projet yi te dëkk yeneen yi ngay gis mu dem yépp quand il y appropriation wala adhésion mu nekk yëfi ñëpp parce que quand lay nekk sa yëf da gis ni maram mooro contribuer na ci en idée wala mobiliser na ay nit ñu jàpp ci loolu mooy tax mu nekk yëfi ñëpp et je pense bien que il faudra encore une fois ñëpp ñuy jàppale état bi ñu demee ci diplomatie économique boobu ci verbe bi ci humilité bi ak ci pondérance bi à ce que ñeneen ñi àndut ak ñoom sax xam ni fii du affaire politique yëfi ñëpp la c' est pour ay Sénégal suba suñuy doom duñ fay ndox ak courant day am transport moo xamante day jógee Dakar ba Ziguinchor day jógee Tamba dinañ am tey ji équité territoriale comme tënkee parce que niñ ko tënkee ni mu rafet nii bu amee solo ñun dinañ bokk ci génération Sénégal boo xamante dans ans dans cent ans ni génération tel ñoo transformé le Sénégal. te loolu waruñu raté cloche bi. Hmm. Euh, Seydina Oumar Seye docteur ñu ngi lay remercier en tout cas a baax ci leeral merci c'est moi voilà ñuy fàttali nii docteur Seydina Oumar Seye euh, sa xam-xam ngi màcc ci wàllum koom-koom jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Moreau.